suba si ñu ngi woon ci Sara Guilel 3 directeur bi fa nekk mooy moom moom euh, Moussa Camara moo ñu saisir woon nee na que abri provisoire yi xaw na leen sonal te loolu président de la république Macky Sall woon war nañu engagé gouvernement bi citoyen yi gouvernement bi mais individuellement chaque ministre pour ñu mën a xeex abri provisoire yi bâtiment bi fa nekkoon crainte la moo enture woon abri bi ñu ko defee ak sama association action pour le développement du Sénégal oriental def nañ fa ñaari classe bi fa demee eh, gis nañu que classe yi commencé nañu jàng ci biir classe yi xale yi ñu ngi foofu te ni moo ko gisee ni ñuy defee Euh, levée des couleurs yi xam naa ne dañ ci bëgg dañ ci kontaan foofu lañ jóge ñëw fii ci Bounama Diallo école bi ñëpp a ko xam ndax ay cadre yu bare fii lañ leen former école bi euh, mën naa wax ne Seydou Nourou moom ci boppam fii la jànge donc mën nañ wax ne que école mythique la ñaari classe lañ fi tabax ñaari classe yi visité nañ ko mais am na lu gënoon am solo mooy miir bi nga xam ne dafa daanoon yàlla dimbali nañu tabax nañ ko ndax longueur bi c'était cent mètres largeur bi quatre-vingt-dix nee nañu ay animaux donc ay jur ñi nga xam ne ñoo doon dugg fii di perturber xale yi ci seen jàng maa ngi profité pour féliciter le directeur ci engagement bi mu am pour que lii ñu réaliser ko di félicité tamit di encouragé personnel enseignement yi félicité xale yi tamit di leen wax ni nañu gën a góorgóorlu pour ñu mën nekk plus tard des élites des cadres du Sénégal ñu mën a liggéey fii Afrique et à travers le monde